yo xamné ci sommes yéwo sénégalais 438 communes Benno Bokk yakar ak i pour bu majorité présidentielle nous avons gagné Nous avons mis ay départements. bo les départements yi 43 les 46 les wayé 43 parce que nous ci département de Dakar ville 43 38 yi peto Bokk yakar ñoko gagné gañe mën naa dikkit bu leen neexee ci voie yi waaye loolu lépit amna am na fu mu féete ak fu mu ne di ngeen ko gis neneen dinañ ci dellu ci la majorité présidentielle a obtenu une large majorité ak bo non ëlbatee mbir mi rek ak noko analyser rek muy ci walu voie ci walu nombre commune ci walu département gagné gañewuñ fep nak ndax moom yàlla rek ay matale lépp te ñi fi nga xam ne gagné wuñ ko it sunu responsable yi ah xeex na nañu fa waaye sénégalais yi ñoo choisir dañ leen di encourager bu ko defee ñu delluwaat delluwaat buum ca mbooy mbooy ga pour que élection yi ñu jëm foofu ñu am fa ndab lii nag mooy li am nit nag mën ngaa wax a wax a wax ba defee ne mën ngaa fexe ba jant bi du feeñ waaye loolu mënta nekk moo tax ñuy responsables sunu responsable yi góor jigéen mag ndaw sage yi nga xam ne yi ñoom la coalition bi pour que nous fexe donat ben, don ben, donon nañ ko way yok unité bi ci sunu biir jamono ji ñu wax am nañ plus de 130 responsables yu kawé yo xamné yi sunu président coalition président Macky Sall yonina len ci biir réew mi ñu ngi waxtaan ak suñu responsable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

kon ñunut dañu wara sam sàmm jàmm kon bu kenn jaawatle bu mu am confusion motax ñuy wax suñu responsable yi ah ñu fexé ñomit euh, vraiment ci ni ñuy waxtaanee ak sénégalais ñu jital jàmm waaye nak ñu vigilant xam ne am na yoo it aussi kenn mënu ko nangot kenn mënu ko nangu loolu it euh, lu ama am solo la pour que ñu wax ko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

gouvernement tok waxtan bu ko defé ñu régler une bonne fois pour toutes la question de la Casamance bobu ba nak mu nekk ci ak ay négociations ba bu yagul nak ñu gis ci ay incidents yu grave ndax nak aussi lo waxtan waxtan amna ci yo xamné yi c'est inacceptable attaquer suñu armée ah di téye ay otage donté voilà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 pour que Casamance révèle tout son potentiel Comme vraiment les actions de notre armée nous soutenir sans réserve Nous aussi tous les acteurs politiques soutenir les attaques tous les acteurs le maire de Ziguinchor Ousmane Soko, nous wax ñu position de ci Kazamas. parce que nous ko attaqué les soldats les soldats les petits biir Casamance Dès ko nañu bëgg position de l'air. Sénégalais parce que nak Casamance vraiment ni ñu ci namm mooy jàmm ak salam, mu ben benn réew président de la République wax na ko mënta am ci lu mel ni un vainqueur ni un vaincu waaye il y a des choses yo xam ne yi kenn du ko nangu te mu nekk moom ci boppam it dégg nañ ko naa demb la xam barke demb attaque contre justice contre gendarmerie contre yoyou, vraiment aussi message nous ñu ni ma ko nous sànq du ñun nous la yëngal ñun ñii toog fii du on en a vu d'autres mais nous xam rek ...l'institution institution wu état beaucoup de politique ñun politiciens yi mën nañoo Tok, di notre suñu biir voyez, justice ak gendarmerie institution ou état la nañ leen génne ci jeu politique